ordre du jour régler problème mu sénégalais loo gën a mën a nekk ordre du jour régler problème mu lekk sénégalais yi problème mu dëkkuwaay la am mooy loyer waxoon naa leen ko fi bind ko ci livre bi maa ngi ciy dellu si waat ñoom ñi yore réew mi tey dañu bokk ci ñi war a régler problème mu loyer du régler wu mukk parce que ñoom ñëpp ay bailleur lañu dañuy louer ay kër. waxoon nako ko delu ci dellu siwaat ci bir plan ak programme ñun biñu taxawal dañu waxon ne il faut ñi am doole ñi am alal ci réew mi état di organiser wu di ronki ci ñoom pour di ko jagleel ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw et c'est un plan qu'on a déroulé de manière claire et limpide ma ne képp kuy fay cent mille francs ci Sénégal billahi wallahi wa tallahi garanti na le parce que bo mënee fay 100000 francs war nga mun amal sa bop keur bo xam dang koy fay en location vente ba mu mat nga yor say et lolu état mën nako mais état bu am xam-xam état bu smart état bu intelligent mo mën def loolu et c'est bien possible Rwanda Paul Kagame est arrivé à le faire Rwanda bo demee lepp lañu toj tabaxat ko li ñi ñuy fay ci logement yi ñu leen jox en location vente Rwanda yegul 50 000. Ta aajuwul nga nek fonctionnaire bo amé revenu bu stable mën nga souscrire ñu jox la sa kër ngay fay en location vente ba kérok ngay am sa kër c'est bel et bien possible de le faire au Sénégal tey jii li tere nelaw sénégalais yi mooy électricité woyafal bi nekk diesel tey jii ku nekk ci yéen xam na ne njëgu woyafal yokku na ku nekk ci yéen dem ngeen ba yaakaar ne lampe yi ci mbedd mi est-ce que kenn connecté wu ko ci seen compteur parce que loo ci dugal mu dem compteur yëpp day xonq dara waralu ko lu dul réew mu metti ak état boo xam ne jàpp nañu ne li ñu war a jël ci xaalis ci askan wi dajale ko ci yéen ñii lañu koy jëlee c'est exactement ce qui est en train de se passer mais dama bëggoon yéen sénégalais yi ngeen bañ ne bugaan waxu ko woon ah kay wax naa leen ko weer yi ñu jëm ay weer yu metti lay doon weer yi ñu jëm ay weer yu tar lay doon weer yi ñu jëm njëg yi dana yokk weer yi ñu jëm la ngeen daan génne seen poste da ngeen ko gën a yëg parce que économie bu Sénégal doxul xam ngeen ne tey jii la nit ñi gën a jaaxle xam ngeen ne tey jii la nit ñi gën a nekk ci situation yoo xam ne situation yu extraordinaire la tey jii la sénégalais yi delluwaat ci gobar jaas gobar jaas yi boo toggee reer boo toggee añ ci ngay tibb reer pour booy yi alors que Sénégal wessu woon na loolu Sénégal Japon nañu né ñi fi né ak liñu ñu dig bu ñu jël réew mi dina soppiku mais malheureusement kon ce plan bi ñu ñu proposé ce plan bi ñu ne dit dig sénégalais ce plan bi ñu ne moom la tracer sénégalais pour que dans un futur très proche que Sénégal Dundubi, sopiku. c'est pas demain la veille Buñu ñu ce qui est clair c'est que nous nous acheminons vers des lendemains extrêmement sombres vers des perspectives sombres et li nga xamné mom le FMI wax wax naa FMI xëy na journalistes yi dañ ci gëna a xel rek mais suñu fonctionnaires yi nekk Sénégal yi liggéey ci des documents stratégiques en interne wax nañ ñu ko bind nañu ko génne nañu ko partagé nañu ko parce que képp koo xam ne da nga nekk ci business képp ku nekk ci le l'environnement des affaires chaque fin de mois di nga jël la note de conjoncture di nga ko lire boo ko liiree di nga gis situation bi Sénégal di jànkonteel di nga gis jafe-jafe yi Sénégal di jànkonteel je lance un appel aux Sénégalais je lance un appel aux électeurs sénégalais que vous êtes le 17 novembre inshallah, Djafé Djafé, yi yii ngeen di dund mën ngeen a teggoog moom yàlla tegul kenn lu mu mënul yaakaar la ñu amoon ci ñii suñu yaakaar yàkkiku na yaakaar la ñu ci ñii waaye tey jii ku ne xam na ne président bi ñu am dafa am président président wu président mooy décider te président wu président amul lenn lu ñu ko teg ci wàllu ndombay tànk lu war mu war a assumer yoon bi ñuy jarale Sénégal six mois yi ñu génn six mois làmbaatu la six mois yi ñu génn six mois torox tànge la ci góorgóorlu sénégalais bi 6 mois yi ñu génn 6 mois musiba la 6 mois yi ñu génn 6 mois torox tànge la 6 mois yi ñu génn 6 mois réew mu dëgër la 6 mois yi ñu 6 mois mu la 6 mois yi ñu 6 mois gouvernement buy la la preuve regardez la diplomatie sénégalaise une diplomatie dañ ko fonk diko tek diplomatie bobu nga référence la won bi ma diplomatie bu Sénégal pour lu ans dama c'est vrai amna lu ëpp ans mais yow nu le génie génie di falé nga jël naka la les jeunes du parce que tout le monde sait que alternance bi le 24 mars c'est l'œuvre de la jeunesse c'est l'œuvre de cette vaillante jeunesse cette jeunesse s'est donnée corps et âme cette jeunesse s'est impliquée pour qu'il y ait une alternance cette jeunesse s'est impliquée pour déboulonner Macky Sall et son régime Nous système ñu dem indil ñu ñoo xam ne ay njuuma lañu ànd na noog Senghor ànd ak Macky Sall traversé Macky Sall ànd ak Ablaye Wade traversé ab Abdou Diouf tey jii ñooñu ñoo ànd ak ñun ñi ñu doon xeex naan anti système tey ji maire yooyu doon taxaw di wax waxu carnet de rendez-vous suite bu yuti maire yooyu ñoo taxaw tey nee nañu ñoom ñooy. bàjjanu baptisé système bi ñoom ñoo taxaw tey sol nekk porte parole ñun ñi doon xeex naan ay anti système lañu dem nañu ba xeex boobu tey galvaudé nañ ko tey xeex boobu c'est une bataille dépourvue de sens parce que xamatuñu lan mooy système ak lan mooy anti système bu ñu demee ba suñu ay njiit mun a dajale ay journalistes jàkkaarloog ñom di len xol dans le blanc des yeux di len wax ay katch di len wax ne chiffres yi Sénégal doon liggéeyee dañu ko falsifié mais ça veut dire que Macky Sall dañ ko wara top pour haute trahison ça veut dire que ces ministres dañ len wara top pour haute trahison ça veut dire que Cheikh Diba mi nek ak mom dañ ko wara top pour haute trahison dañu leen war a topp pour euh, fausse écriture euh, en comptabilité publique falsification dañ leen ko war a faux et usage de faux dañ leen ko war a toppee kon ñoom ñi yore réew